ñetteelu xaaj bi ci juróom benn xaaj yi bi ñu agsee te maryaama war a mucc dalukaay yépp feesoon ndax nit ñu bare ñëwoon ngir bindu si yusufa ak maryaama dal fa ñu daan denc jur ga foofu la maryaama muccee doom ju góor mu lëmas ko ak ay laytaay tëral ko fi jur yi lekke ci wetu betleyem amoon na ay sàmm yu doon wattu seeni jur guddi googu mel na malaaka yàlla feeñu leen malaaka mi ne leen bu leen tiit ndaxte dama leen di xamal xebaar bu baax buy indi mbég mu rëy ci nit ñépp te jii ca dëkk daawuda ab musalkat juddul na leen fa te mooy almasi bi di borom bi ci firnde ji ngeen koy xàmmee dingeen gis liir bu ñu laxas ci ay laytaay tëral ko ci lekkukaayu jur te saasa yeneen malaaka yu bare feeñu sàmm yi malaaka yiy woy tey màggal yàlla noonu sàmm yi dem betleyem ñu fekk ñu tëral xale bi ci lekkukaayu jur ga bi xale bi amee juróom-ñetti fan ñu xarafal ko ni mu nekke woon aada ci waa Israyil ñu tuddee ko yéesu ni ko malaaka mi waxe turu yéesu mu ngi tekki musalkat léegi ma laaj leen juróom lan la malaaka yi yëgal sàmm yi tey jii musalkat juddu na ci dëkku daawuda mooy almasi bi di borom bi juróom benn lan la turu yeesu tekki ak lan la nuy won mu ngi tekki musalkat mu ngi nuy won ne yeesu mooy musalkat bi yàlla dige